Sidya Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. yéen waa réew mi. yow da ci tabaski bi di leen baalu àq di baax ñëpp. d'accord da leen déwéniti. déwéniti yow itam euh, yow yaay vice président alliance And Gëtëm Gësëm waaye itam secrétaire général fédération bi nga xam ne moo ëmb liggéeykat yi fii ci Sénégal euh, yéen tey fan ngeen toll ci euh, xeex bi nga xam ne yéen ko doon xeex ngir am li nga xam ne moom doon ngeen doon sàkku ci nguur gi. waaw ànd ak moom gàcce ngalama parce que liggéey bi rafet na fexe nañu bëri nañu def nañu mouvement d'humeur ba gouvernement mi woote ndaje signé un premier protocole d'accord bi nga xam ne carrière u agent yi la ma bokk na ci centre euh, formation INDSS bokk na ci yeneen formation ak yeneen euh, euh, reconnaissance pour la validation de certains diplômes ah on a réglé pas mal de choses avec cet accord mais le li desoon mooy li nga xamante ne mooy affaire ndàmpaay yi parce que loolu dafa am kon impact financier loolu la état bi doon traîner di traîner ñu ne ko nag boo gaawulee rek ñun tam dañuy bouger parce que yow bi enseignant yi commencé seen mouvement di mooy ñun waxuñu mais jox nga leen ndàmpaay ñu koy rafetlu mais da nga war a da nga newoon euh, administration Sénégal yëpp nga mu ñuy concerné ñun tam ñu ngi laaj suñu par wàll parce que on était dans le programme ci la ministère woote ndaje ñu waxtaan waxtaan ñu daal di signé accord ñu ne léegi li nga xam ne santé mosuñu ko am muy indemnité de logement danañ leen jox cent mille mais cent mille bi day progressif ren cinquante mille lañ mën a joxe après année prochaine ñu jéem a yokk mu dem dina dem indemnité boobu dina dem ba cent mille par mois tous les agents bépp agent mu nekk santé bokk na ci contractuels yi bokk na ci agents municipaux yi ñëpp dinañ dinañ am seen part ñu encore indemnité de risque yi cinquante mille la mais dinañ koy indemnité d' itinérant ñi nga xamante ne ICP yi infirmier chef de poste ak ak euh, ñi nga xam ne dañu bokk ci programme vaccination moo ne PV bi ñoom ñoo koy am boobu dina jógee quinze mille dem trente mille ñu ne également indemnité de responsabilité paramédicale bi nga xamante ne war nañ ko am euh, dinañu xool diplôme ak niveau diplôme yi pour mën a jox ñi vingt cinq mille ñoo ne ñoo leen ñu ëpp grade jox leen trente cinq mille donc actuellement ñun ñu ngi liggéey ci fichier bi parce que état ci boppam moom agent yi mu doon gérer directement fay na leen donc des na contractuel hôpitaux yi d'ailleurs euh, sànq wax nga nu ma ne waa waa principal ñu ngi doon ñaxtu pour ñu respect des accords et cetera donc loolu bokk na ci li nga xamante ne discrimination waroo fi mun a am hmm. ñëpp lañu ñu war a yemale ñun collectivité locale ñu ngi recenser suñu agent yi defar fichier boo xamante ne bu actuel la pour ñu yóbbu ko ministère des finances pour ñu mën a fay donc euh, te jot nañu aussi réglé pour mi Covid yi Euh, cent quatre millions pour ñu fay ñi nga xamante ne premier voyage yi maanaam bi fond Covid bi nekkee fii dañu leen tëb pay ñu leen mu nekk chaque agent trois cent mille boobu tamit euh, ministre de budget baaxee nañu trois euh, cent quatre millions yi pour que ñu mën a fay donc xaalis bi disponible la maintenant information yi dañuy consolider jaarale ko ci ministre des collectivités locales mu transmettre ko son collègue des finances pour ñu mën a fay donc loolu ay acculé yoo xam ne c'est extrêmement important te defe naa ne day améliorer dundinu liggéeykatu santé donc côté boobu daal def naa ne vraiment euh, mën nañu mën tàccu parce que lépp ñu war a def satisfaction. Euh, waaw mën nañ jàll rek ci hôpital principal. ñu ngi ñu ngi def sitting jamono ji te jamono ji tamit gis nañ li ñuy amal mouvement d'humeur bëri na ñu ngi ñaxtu ngir ñu respecter li nga xam ne euh, moom lañ si ñëwoon ak nguur gi lu ci mel ni ñu améliorer seen i prime désintéressement est-ce que loolu mënul am gàllankoor ci seen liggéey ñaxtu yu bëri. non non du am nga c'est-à-dire que xam nga problème balaa ñu koy faj il faut ñu ko ku poser le problème doo faj doo régler sa problème donc ñu ngi rafetlu taxawaayu agent principal pour rappeler au à l'ordre parce que dem naa loolu état bi lañ gën a interpellé parce que moom moo fay agent mi fee ñi nga xam ne ñoo nekk contracté te ñoom ñoo war a déposer euh, soit ñoom jox euh, hôpital bi xaalis bi soit hôpital bi jël ci fonds propre mu fay gaay parce que discrimination mënu fi am ngeen def même formation même liggéey ñu fay ñi bañ a fay ñi loolu donc looloo tax ñun ñu veiller au grain et nous sommes prêts à à plan plan ci social bi parce que bu fekkente ne ñoom euh, respecté ñu accord yi dinañ ko donc ñun yaakaar nañ ne dinañu respecté accord bi parce que xam nañ ne ñun ànd ko seen ah amuñu caaxaan ci côté boobu donc euh, maa ngi encouragé sama camarade yi nekkal cité da nga xamal ne du neen seetaan incha allah danañ jël dossier bi à bras corps pour très rapidement ñu mu rentrer dans le fond parce que date de valeur bi le premier mai la ñu ko comptabiliser donc dañu war a am rappel depuis le premier mai ba léegi incha allah dinañ ci taxaw ba ñu fay leen. d'accord euh, tey gis nañu Marie Khemesse Ngom Ndiaye moo nekk ca boppu ministère de la santé euh, ba mu toogee ba léegi naam sax yàggul est-ce que am na lu soppeeku ci yéen seen wàll yéen yéen yi nga xam ne yéen a yëngu ci wàllum santé ndax am na lu soppeeku. waaw Marie Khemesse moom def naa du ku bees si ministère bi parce que nekkoon na directrice générale de la santé donc moom elle était au cœur du ministère de yàlla dafa def euh, ministère de la santé saa yële passé vraiment ay tolof tolof rek maanaam ay kii accident xale yi fàtte seen bakkan et cetera donc moom yàlla def ñu jokkoo ministère bi pour mu relever défi donc je crois que ñu ngi koy ñaanal mu réussir sa mission. di ko may un peu d'état de grâce pour que moom mu réglé problème mais am na mu na xam ne mënul xaar c'est comme accord yi ñu signé état de continuité la defe naa ne moom pas pour vraiment accompagner syndicats yi ak travailleurs yi pour ñu régler respecter les droits donc looloo tax ñu naan bon pour ñun euh, comment dirais-je xam nga boo boo jëlee le cas de euh, cadre de transport ñu dem ñu dem ñu bi dem sonn wala mu am problème dañ koy génne nga jël apprenti bi rek mu ne kaay toog donc loolu tamit il faut ñu tenir di compte moom mu ngi woon foofu dafa naa dina lu ba climat social bi nga xamante ne moom la fi prédécesseur mbay bi ñu signé ay accord moo def tout pour mu ñaa chauffé parce que ñun dañuy suñu doy moom kenn du ko nax saay donc looloo tax ñu koy souhaité bonne chance mais di ko xamante ne ñu ngi soxla ñu ngi veiller au grain pour que vraiment ñu bañ a jalgati yoon. ku jalgati yoon nag bi ñu fekkee sa kanam parce que xeex ak yow quel que soit ministre bu fi kooku moom y' a pas de y' a pas de doute donc je crois que à bon entendeur mhm. wax nga sànq ci biir wax am na accord yi nga xam ne mun taxaar yooyu yan la. ah ma ne ci biir wax ne nga am na accord yoo xam ne mun munul xaar. waaw accord yi nga xam mooy xaar mooy. régularisation des agents ñoom ne contractuel ba léegi fay ne ba tax na tey waa principal ñoo commencé donc dafay indi perturbation ci dara te xaalis bi moom c'est disponible au niveau des finances donc nañu góorgóorlu ba ñu réglé loolu bu ñu ko réglé wul ñu nekk ci leneen il est évident que tension bi day yéeg te bu yéegee dem na leen wax parce que vraiment ñëpp a sonn euh, ñëpp ñëpp am droit ci prix yi nañu góorgóorlu ba ñu réglé parce que ça ne sert rien nga am moyen ci ñu accord nga ne doo ko respecté parce que loolu tamit ñu ngi koy dénoncé boobu ba léegi boo xam ne da ngay signé accord doo ko respecté c'est c'est dangereux donc je crois vraiment côté boobu ñu ngi koy interpellé pour que maanaam Dora pour que ñu fay directement ah jël en charge revendication am ñu ngi xaar parce que du revendication parce que at yii la les acquis doivent être respectés parce que c'est des accords qui engagent ñaari parties yëpp la engagé donc vraiment ñu ngi lancé appel ci côté boobu. d'accord bu ñu bëggee jàmm ne ñooy ñëpp continuer liggéey bi normalement na ñu ne li nga engagement yoo xam nañ ko nañu ñu respecté ko. Mhm. Euh, ànd gësëm mu mel ni am na marche bi muy waajal. waaw am na marche bu mu koy waajal le vingt sept parce que am na suñu camarades yoo xam ne dañuy am na Tivaouane am na côté Mbour ak tout ça là. alors mhm. ñun dañu ne accident yi xewoon di côté yi dañu am ay problème mais c'est pas les travailleurs parce boo demee benn ay kii kii Tivaouane ah électricité lakk ba ñoom faat seen bakkan ay xale. mais ñun ban travail ñun ban ñun travail xanaa ñun ñooy taal courant ñun donc hôpital bi moo dul def les contrôles loolu les contrôles de qualité des installations bu deful loolu bu am il faut ñu bañ a jël chapeau bi jox ko travailleur ban travailleur warul tëdd prison pour loolu duñ ko nangu <coughs> loolu na leer loolu côté boobu moom duñ ko bàyyi parce que c'est pas juste ceux qui doivent ñu ñooñu fay ñu jàpp ñu leen ñu ne ñu nañu jàpp ban travailleur moo nekk la ñu amul si boppam électricien dañu woo électricien ñi nga xam ne ñoo installé kii bi hmm. alors ñu jàppaay infirmier sage-femme parce que jour boobu tu te présent à l'hôpital ñu bëgg la dugal euh, c'est pas juste loolu vraiment je crois que loolu moom kenn du ko seetaan d'accord Euh, gis nañ rapport bi nga xam ne euh, génn na ko direction des statistiques du travail et des études euh, fësal na rapport bi atum 2021 boobu le rapport wax na am na 2027 déclaration établissement yu yees ci loole am na 216 yi nga xam ne jot naa tëj ñu toll ci 1146 yi nga xam ne ñàkk nañu seen liggéey ci atum 2021 bi yow ngay nekk secrétaire général jiite fédération liggéeykat fii ci Sénégal jàngat nga am ci boobu rapport. non c'est-à-dire que man day dama jóg ak naxar quoi parce que quand même cent quarante et un c'est pas cent quarante et un c'est des milliers milliers loolu lu koy indi mooy dañuy fermer entreprise mais ñëpp xam nañu am na ay normes am na respect réglementation balaa ngay tëj entreprise am na loo war a respecté bu fekkee ne licenciement économique la dañu war a joxe ay preuve que entreprise dafa nekk difficulté maanaam joxe kayit ne entreprise sangam dafa am mais rapport bi pour man c'est pas complet tant que jotuñu élément yooyu donc il faut que ministère bi mu bañ a yem ci publication de statistiques de perte d'emploi mais na wax ñan ñuy motiver loro pour que ñu xool ñu aussi est-ce que am nañ pour solution est-ce que état bi war na ci jàpp est-ce que kii la et cetera mais yooyu ay chiffres c'est bien beau mais expliquer chiffres yi tamit beneen affaire te loolu la ñuy laaj ñun MGT nañ demander audit euh, le fichier des entreprises supprimées pour que ñu xam les motifs réels qui ont à déposer la clé sur l'opération est-ce que jafe-jafe la ñu amoon ñu tëj ou bien est-ce que gestion yaa ma neex mooy indi problème yooyu bu boobaa nag est-ce que les droits des travailleurs ont été respectés dans le cadre des procédures mmh. parce que man kay je me dis deux cent seize entreprises ana ay nekk ci pour xam ce qui s'est passé moi je pense c'est le rapport du ministère seulement que donc képp ku ci information ñun en tout cas talal lañu ne loxo pour que ñu ensemble étudier dañuy cité situation bi mën proposer ay solution parce que affaire yi du revendiquer rek du revendiquer rek dañu war a ñun tamit indi suñu contribution jéem a xool naka la ñuy jàppale entreprise yi pour que fermeture intempestive yi ñu arrêté donc je crois que fan yii di ñëw ci la jublu maanaam étudier euh, comment dirais-je situation yu indi yooyu ba pare lu dañ koy laaj c'est que ñun li ñu commencé jaaxle mooy Euh, am na institut de travail yu bëri état moo leen yóbbu formation fay leen ay bourse ñu jàng ba pare nekk ministre du travail ay institut de travail ñu xëy rek entreprise privée débauché leen defal directeur de ressources humaines te gis nañ ne ñooñu en ñoo gën a compliqué situation dund ñu travail bu ñu ñëwee rek dañuy yëpp la ñu mën a mettre encore mel ni mosuñu nekk inspecteur du travail loolu jaaxal nañu dañuy jaaxle vraiment. nga ñëw fekk entreprise nekk fi am ay contrat yow ngay inspecteur du travail nga ñëw cassé yëpp ça veut dire que dañ lay indi pour sa sale boulot par le le patronat. Mhm. parce que maintenant tu es devenu un employeur. donc vraiment loolu daal ñu ngi koy ñaawlu ah di ko mhm. dénoncer ci euh, affaire xaalis tax nga jaay sa ngor mais c'est honteux donc c'est pourquoi côté boobu tamit dinañ ci wax. d'accord bu ñu ko seetaan administration du travail waroon nekk tremplin. ba nga dem ba maîtriser les procédures nga dem léegi nag dem ci privé di massacrer nit ñi loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg parce que ñoom xam nañu situation entreprise yu bëri sax nit ñi nangootuñu embauché xale yaa ngi fay di xëy di wàcc di ñëw ñu jël leen comme stagiaire donc bu ñu commencé fragiliser code du travail di jël ay stagiaire di la fay ay somme yu ñàkk fay dem mais da ngay dem liggéey di ay euh, euh, di passé doo ko am donc je crois que vraiment war nañu un bon revenu en outil de sécuriser les emplois et de payer des salaires décents. Mm-hmm. mooy wax ji mais bu ñu toogee nii di xuli mais je te dis que dans quelques années fii euh, bombe sociale boobu boo éclaté ah ñëpp lay yóbbaale donc vraiment nañu góorgóorlu ba yéeneenante jàmm jàppale suñu xale yi ñu xam ne bu ñu amee xëy xëy boo xam ne dina valable na xëy boo xam ne day respecté droit day respecter règlement mais pas loo xamante ne ñàkk fayda la maanaam patronat rek moom am droit de vie et de mort ci travailleurs yi loolu vraiment ñun duñ ko seetaan ñun société Sidya Ndiaye ñu lay gërëm maa ngi lay gërëm aussi di fàttali yaay vice président alliance And Gueusseum waaye itam secrétaire général fédération générale des travailleurs du Sénégal